montagne bu dem ba yëg ni buñ ko tegee alxuraan mu yëngu jinne dem ba découvrir alalam boppam alxuraan nangu ko ni dara dootul dox digganteem ak yàlla mushrik bi gëmoon leneen yàlla ni bu duggee seen biir sama kàddu dugg ko mu nangu ko yii yëpp jaar fi yow mi ni nangu nga ba noppi nag yàlla dem yëg ni bu ñuy wax alxuraan du la sax ndax yaa ngay wax leneen مموج نان واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون gàcce la moo tax il faut faire très attention di nga yor mbir di ko foye fekk ku dul kenn gën la ko fonk moo dal kenn ci saxaaba yeneen yi yeneen bi di jàng alquraanam rek ba yegsi ci wassariqu wassariqa faqtau aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalan min allah lu ca tegu lu ca tegu ah wallahu azizun xakim moo ca tegu mais saxaab bii bi bi mu koy jàng dafa jum ni wallahu gafurur rahim waaw arabi ba romb ko أعرابي أنا ديككم وهو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله لأن والله غفور رحيم منك يا صاحب رسول الله صح كن مسل ديكلون صح منك إن الله عز فحكم فأمر بالقطع ولو انه غفر ورحمه لما امر بالقطع كن مسل دجلو منانو سي اكسترا اوردينير جانغ رك جومتي ني موي جيخال ايابي ورون واخ والله عزيز حكيم لاني والله غفور رحيم مولا خمني فو في تريز اتونسيون باسكو فام دا فام ريسبونسابيلتي بو موي انغاجي باسكو ايابو مل نون غوخ بو نوبي ني والله غفور رحيم اكوزي nga yalla jaamur bi ci bokk romb ko ni ko seetaatal li nga wax ni ko gafurun rahimun bi baaxul azizun hakimun bi moo baax parce que fa azza فحكم فأمر بالقطع ولو أنه غفر ورحم لما أمر بالقطع نيكو يلا تد nga tax du fayu kenn mësul dégg loolu mun ko tedd nga gumu tedd moo tax du fayu kon nag loxo bu jëlloo loo waru jël ba yàlla ni nañ la dagg fayu taxul càng ga muy dabu ca yow a tax moo tax mu tudd baatu azizun hakim da bu tuddé xafuuru rahim nak légui dañ koy accuser te moy moo ne mën naa jéggale la lu ne du te kenn dara ndax ndax njéggalam kon bu ko waxé ba nopi ni nañ dag kenn du mëna tuddé xamati aya bi du muy firi motay tax sax toujours ba la ngay wax aya xam ba xam ndax lim ko duwelal bobu la wala du boobu da sunu borom am fu ko wax ci al hadith al qudusi ene a may togn de sunu borom mu ne yéen ak may tooñ de dal xadiis al ñu ni ko lan mu ne ñi ngeen di woo rek naan eh Aziz eh Aziz yéen ak may tooñ bàyyee leen maag Aziz ci te jël ab ji kenn mësul gis loolu sunu borom ku ne rek nga ni ko Aziz wala romb nit ni ko Latif eh Latif da ngeen di yàq bàyyee leen mag yooyu te ngeen jël ab du ji waxin la waaw parce que tur day wuyu tur day wuyu borom te nit nag boo ko nee Aziz ba noppi tatanewul kenn te bis bu ne mu naqari deret bis bu ne muuxuloo xuloo Aziz ja dootul am solo tax yàlla ni baatu Aziz ji bàyyee leen ma ko te ngeen jël Abdou ji baatu Latif bi bàyyee leen ma ko te ngeen jël Abdou ji parce que même Abdou ji sax bu duggul fa mu war a dugg sax ba tey baat bi mënees na koo dégg waaw loolay tax eh fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun ba tax ñu wax ni nag yàlla alquran miroir la maanaam seetu la kenn ku ne loo doon boo taxawee ci kanamam mu wan nga sa bopp waaw alquran seetu la kenn ku ne loo doon boo taxawee ci kanamam mu wan la sa bopp boo dëggoo boo ñëwee ci kanamam yëg ko waaye boo dëgguwul it boo ñëwee ci kanamam yëg ko boo jubee boo ñëwee ci kanamam yëg ko waaye boo boo ñëwee ci kanamam yëg ko boo jaaree yoon boo ñëwee ci kanamam yëg ko boo teggee yoon boo ñëwee ci moom yëg ko moo tax mu ne yonent bi jarul yenn yi nag قد تبين الرشد من الغي kaay leen gëm rek nag jarul baqata axin la ikraha قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وتنك لما nag سيدي ma dégg ni wolof lu mu la wax du dëgg la wax waaye lu mu la lépp dëgg la wolof waaye lu mu la lépp dëgg moo tax nañu def très attention encore waxtaan ak mbokk yi avant ñu ñëw ci conférence bi ko waxtaan ak secrétaire le premier secrétaire Abdou bu ngeen gisee ci sunu état yi état bu ci ne am na devise dañoo tudda chiar parce que ñun dañuy foye lu yàlla dul foye yàlla lu mu wax rekk def na ca jomam pour wax bi bañ a dandoo bu tax ku ñu ku jër wutal ko emblème wutal ko devise la ilaha illallah gis ngeen lu jar a xalaat la yaakaar naa ni mbokk mi ma wax li ma wax dana ci réfléchir te dana ci waxtaan ak ñi wax lu bo drapeau saluer Fini saluer drapeau bi surtout ku sol tenue bout, bu ko saluer wul ñu sanctionné ko mais ku violer devise bi ken do la wax dara da le dem Sénégal nous les devises moins un peuple un but une fois est-ce que deug dëgg am est-ce que am un peuple un but une foi est-ce que deug dëgg am ah wala ñi ngi ragal rek ku nekk ngi naan ñi sa bopp ñëwoo la ko yëngal ah amul Habib wax na deug amul un peuple un but une foi te dem nañ ci ba faf li gën a metti li gën a metti ñi jóge ci yàlla waroon fexe nit ñi ànd ci ñoom la nit ñi tasaaroo dañu wax de alladina farraqu diinahum wa kanu shiyaan génnul foofu génnul foofu

la France n'est pas antisémite, mais la France est raciste. Tout va. Et voilà qu'on lègue liberté, égalité la fraternité Fumodoku, gade Maroc. ñu ne la biir doxali al malik mooy al watan top ci allah soog Habib nee na léelée sax yàlla du ñëw ah. Ah. moo tax nag gis nga waxantu baaxu ndax damay xool ci Sénégal laa ko miine parce que fii xëy na ñàkkul am na fi mais li ma koy gis barewul damay dox léeg-léeg biir Dakar xool benn super bu ma xoolee benn super ñu bind ca lu jot yomb ñu bind ci super bi lu jot yomb bu ñu doxee tuuti ma gis ko muy rawanteeg beneen super bay bëgg a daanu pour jël client nañ waxante dëgg baatul lu jot yomb bi ana mooti comme ko ba yaa ngi jëkkante ay waxantu rek ma doxati ba jag xool benn taxi mu bind jeg na nit day maandu te moom mi ni nit day maandu mu ngi truqué taxi bi pour mu rouler lu ëpp ndax borom fay lu ëpp ana nit day maandu amu fa Je suis télécentre ñu télécentre m'en douter té jëw ñëpp télécentre ba la ñuy ci dañ ko pas mi lu jar la ko ci Cheikh Ahmed Tijani il y a 25 ans ou est-ce que ko ci général bu ni leen bàyyi leen seen photo kilifa yi ngeen di def ci seen oto yi mu ndax amul lu gën a ñaw jël sa photo kilifa def ci oto ñu romb ko mu paan ce qui veut dire que sëriñ am na lu mu mënul te bu booba yaa ko tooñ mu mel ni détail yooyu wax waxaan yooyu dañ koy xeeb mais lu mat a bàyyi boo demee Dakar mur yépp ku ne parce que yàlla am na ci yoo xam ne boo amee te kenn faju ko moo koy fajal boppam xam nga réew mu wax ba tax yëpp tëj wax ba taax yépp tëj te réew ma gën a dellu gannaaw ce qui veut dire que a fa am amal xiyaamu فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها تانتي نورونا بيامنا يو بوكل ديغول سوتاخ نين بوكلو نين دي باي كنا خام لين لان موي سين ميسيون خام لين نيت لي نين ام لان yi ci dis yëpp sunu borom a ko moom ndax eh, moo tax góor ga dafa dégg ni am na ñu teg ci deram dara mu RTV Dakar yéen ñi aboné gul aboné len gaaw ba sàlli kulus notification bi ndax mooy tax ngeen di am lépp lu fiy bàyyi ko jaa ngeen jëf